toll situation boo xam ne mosul xew Sénégal train bu dem ba taxaw nga war ko dekki moom kay tabax bu bees am na fi ñu ngi teer waa ngi ni ñu ngi tabax bu bees wala muy dem sooxee nga renforcer ko mu jóg dem waaye du dem ba taxaw da nga war ko dekkal il foog nga jël ay matuwaay bi ñu euh, président d'abord jub jublu ci chemin de fer moo tax mu créer ko secrétariat d'État parce que beaucoup vraiment régler coûte que coûte cette question bañ nañ ba tey jii dañoo séparer xaw a séparer en gum terre bi ak chemin de fer pour que liggéey bi ñuy def ci terre bi ak effort yi ñuy def mu bañ a jaxasoo ak liñ ñu a def ci chemin de fer traditionnel bi donc man je pense que président jëmmal na tey jii jox na ko fulla jox na ko fayda te tamit wane na Pastef am bimu nañu d' abord def leen politique ferroviaire ngeen wax fii ba deux mille trente cinq hmm? même deux mille trente cinq yàlla euh, bu ma fi nekkatul aussi ki fi nekk aussi dina xam ne am na affaire bu ñu mënoon bu ñu traversé pour bu ñu tracé pour chemin de fer def leen politique ferroviaire wax leen surtout euh, yan chemin ferroviaire à yan disposition la ñu war jël pour faire du chemin de fer un véritable levier de développement économique maanaam nan lañu fexé ba ba kay parce que kay la chemin de fer nan lañu fexé ba ba kay bobu non mo andi ay jeexital yo xamné dafa am solo ci économie Sénégal ak ci dundul doomi adama ak ci dundul Sénégalais yi loolu ñu tracé ko ba paré. mu ne bi ci top mooy nañ fexe ba dundal Dakar Bamako ñu ngi waxtaan ak Banque mondiale.

mu mel ni ni meloon muy daw ay 50 60 70 km à l'heure 80 km à l'heure di dem di mais l'autre dañ aussi c'est ko naree xaar ñu d'accord avec banque mondiale avec d'accord ak canadien partenaires, nous accord ak yeneen partenaire ñuy dem di defaral projet di andi investissement commencé tabax je demande à 5 ans mais est ce que ñun mën nañu xaar 5 ans encore balay temps boobu yëpp nañ fexe dara teg dara loo xam ne noonu la ñu ko waxee rek nañ au moins def lo xamné dina non seulement dina am njëriñ mais dina commencer woné né ñi ngi dem di ñëw ñu commencer yëngatu effort personnel nga def ko Sénégal def ko ci budget budget pour Tekkel raay bi au moins defar ko ba Tambacounda ñu commencer assurer trafic bi des conteneurs di ko yóbbu sur Tamba stocké ko fay évidemment ci benn plateforme jeexte bi mooy dina wàññi pression bi ñuy def suñu yoon yi nga xam ne ñu ngi koy chaque chaque année ñu génne benn budget dem di ko defaraat dina dimbale port autonome de Dakar parce que dina tax ba aussi dootu am congestion au niveau euh, du port évidemment dina créer aussi emploi te ñi nga xam ne aussi ñooy travailleurs yi te nga xam ne seetaanuñu leen mosuñu leen seetaan dinañ commencé sax di yëngatuwaat ah delluwaat ci seen i ci seen i ci seen ci seen i liggéey euh, loolu dina leen mobiliser joxaat leen confiance le fait que mu mobiliser leen joxaat leen confiance rek déjà lu lu am solo la et euh, bi ci topp nag bu fekkente ne defar nañu bi ba pare ba tout ce qui est marchandise mu ngi commencé di dem di ñëw moo ci gën a am solo danañu mën a xool nan la fa voyageur bi mën a ñëwee teg loolu tamit GTS mu ngi ciy def euh, liggéey bu mucc ayib de préparer moom boppam. politique ferroviaire bi dafa recommandé woon ñu am société de patrimoine am société boo xam ne moom def transport ñu séparer l'activité activité de gestion de l'exploitation, exploitation gestion patrimoine avec lex ak ak transporteur. comme autoroute la rek ni effage moo yor autoroute bi mu koy gérer oto yi euh, dem Dakar dem dikk saa yu ci yi fay droit de passage wala privé bu ci jaar bu ñëwé day fay droit de passage kum mu koy fay Eiffage mu séddoo ko ak état bi wala mo ko séddoo ko ak ay partenaire Non nak lañ ko bëgg a tamit ci chemin de fer nga xamné CFS mooy société nationale chemin de fer mom moy assurer gare yi assurer ligne bi assurer investissement assurer patrimoine bi léegi képp koo xam ne nag am nga train soxla nga yaa xam marchandise la yaa xam voyageur yi par exemple euh, minier yi nga xam ne ñu ngi dem Jogo di dem Tivaouane di dem ICS bu ñu daw dañuy fay redevance comme GTS aussi état bi créé ko mu nekk transporteur public moo xam ne moom it dina assurer dem beeg dikk bi ci wàllu nit voyageur pour euh, ay fépp foo xam ne aussi mu ngi fay dem di dikk di utiliser ay raay yoo xam ne CFS moo ko moom koy fay ay kon noonu la mbir mu tëddee ni mu tëddee ci chemin de fer foofu noonu la tëddee aussi ci terre bi terre bi tamit SENTER gis ngeen ne aussi créé nañ ko moom mooy gérer li soci li di def ci chemin de fer moom la SENTER di def ci terre bi li GTS fas yéene def ci kaw chemin de fer bi moom la SETER bi nga xam ne mooy exploiter terre bi moom lay def ci kaw terre chemin bi noonu la tëddee. Il faut continuer à évoluer. à évoluer, évolué, nous rendre le euh, chemin de fer aussi performant. qu'il y avoir un niveau acceptable pour que nous puissions aller dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans. Ou bien plus tard. Nous avons savoir que le niveau euh, d'exploitation est très important comme nous avons une entreprise euh, publique. Nous pouvons fusionner, euh, société de patrimoine mais aussi une société d'exploitation ou de transport. déjà GTS mi préparé wu ñun tamit euh, son directeur général de euh, Ndiaye mi préparé à ça pour que bu CFS réparé raay yi defar ko ba mucc ay defaraat passage aniveaux yi régler les yenn de faire defaraat pour foo xam beaucoup plus de sécurité mon moment commence à assurer d'un. actes. dikk bi waaye tamit du ko mën a def fi nga xam ne terre bi moo fa nekk parce loolu day àndi euh, jaxasoo et puis sax wóoru euh, day day dafay xaw a jaxasoo ba tax na aussi moom it dañ koy tracel foo xam ne mën na fa jógee di dem di ñëw di àndi ay passagers yoo xam ne daf koy jokkalaate ak terre bi boobaa dina am njëriñ pour terre bi waaye terre bi aussi dina am njëriñ pour moom bu ñu demee ba nga xam ne nag niveau de confort yi sax tane na aussi ci ci niveau boobaa daanaka day nekk benn trajet boo xam ne passager bi moom day changer train rek foofu lañu ñu jëm ak CFS jëm fa ak GTS mais jëm fa aussi ak transport bi nga xam ne ñu koy def ci train express régional